xadaratul juma bii nag mooy deuxième édition xadaratul juma bu ñuy amal fii ci Louga xadara bi nag jàpp nañu ko kañ la juma tollook la 12 mai muy am ci teewaayu njabootu na Tidiane yi rawatina njabootu maam alxaaji malik si radiallahu taala anhu xadara bi nag benn yoon la ci at mi benn tàkkusaan taalibe Cheikhuna Tidiane yépp fas yéene daje foofu ca place publique bu Mansour Bouna Ndiaye jàkkaarloog mairie bi foofu la ñuy amalee xadara bi di ko yëgal nag taalibe Cheikhuna Tidiane yi bàyyiwuñu benn kër rawatina kër yu mag yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Louga di këru l'islam bi kër xadaratul juma bii nag mooy deuxième édition xadaratul juma bu ñuy amal fii ci Louga xadara bi nag jàpp nañu ko kañ aljuma tollook la 12 mai muy am ci teewaayu njabootu Cheikhuna Tijaani rawatina njabootu maam alxaaji Malick si radiyallahu taala anhu xadara bi nag benn yoon la ci at mi benn tàkkusaan taalibe na Tidiane yépp fas yéene daje foofu ca place publique bu na Bouna Ndiaye jàkkaarloog mairie bi foofu la ñuy amalee xadara bi di ko yëgal nag taalibe Cheikhuna Tidiane yi bàyyiwuñu benn kër rawatina kër yu mag yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Louga di këru